léegi tey bu boo gisee tey euh, bombardier parce que sénégalais yi lim léegi diwlin gaak lu ne lu ne dugg nga ci lu ne ne nga ay défi nga bëgg di relever mhm. euh, damay tëj foofu parce que gis nañ la fi sax turki ca diw ga loolu moom defe naa bàyyi nga ko léegi xaw ma da nga ci amal tuli combat xaw ma non ah, euh, non combat yi dafa xaw yi dafa yàqu léegi parce que dafa dem ba si biir mbër yi dañoo xamante di di di mu am am négociation léegi waa bëri combine moo tax léegi amatul ay combat choc mhm. ba finalement doxatul doxatul comme ni doon doxee bu njëkk doon am yenn combat soog yi. léegi loolu xalaatoo ko mu am fii bëri diwlin. Hmm. non yaakaaruma ko parce que loolu turki rek ah ko parce que euh, nit ñuy boole bokkuñu dëkk. te si te dañuy signé contrat. te bëri turki bi amuloon contrat mbapat lay doon comme mbapatu Sénégal yi. dañuy tey ñu ne Antalya mooy tëgg ñu groupe boo dem. Hmm. dimanche ba léegi Karamusel mooy tëgg ñu kon ñu dem. beneen bi Canakala Izmir Izmit noonu lañ koy defee. mais nekkul ay contrat yam dañuy dañuy fay mbër yi dañuy ñëw teg benn loo kenn gagné ku jël final bi jël ko waaw noonu la ñuy def bi ñu demee nag ba ñëpp xamante parce que même mbër yi ñooy daje tout le temps mujj gi négociation yi bëri connaissance yi bëri après amatul enjeu parce que bu ñuy dajee li ëpp dootuñu def fi vrai combat. yow mas nga fa gagné dara. ah si am naa fa huit médailles. ah Mbour ak may seetaan feete naa ko fii Robine Abdou Mané def ko def ko euh, fête bu mag gars yi ñëw. <laughs> kookoy bombardier léegi nag damay barasti ku dugg ak yow ci làmb ji. Euh, olof a ko wax lu dafa waxul ay di njàmbat hmm, signé nga komba yow ak Balla Gaye numéro 2 boo xam ne bi nga ko signé ba pare yaakaar naa la ca topp ci ay wax am na ci wax nga fii sànni ko ma déggaat ko micro mu wax tontu la xamul la ne du ay loxo yoo ko du ëpp doole joo ko du bëre boo ko dàq def mhm. ba tax ngay xalaat ci moom yenn yi mhm. loolu yaakaar naa dégg nga Balla mu wax ak ñun. waa dégg naa ko li ma wax moom dégg na ko man li mu wax di moom man li ma wax moom dégg na ko. moom li mu wax man dégg naa ko. li tax na du ma si soreegum pour l'instant mooy amaguñu date. bu ñu amee date ba am face à su boobaa loolu yëpp ci lay leer. yaa moom waaw. actuellement Sénégal fi ñu ci toll mooy dañoo toll ci mbas moo xam ni actuellement moo xaw a bloqué lu baree bari bari Gaston Mbengue am na geste bu mu def joxe na xaalisam ka mu new ka mu bari ñu ngi ko si encouragé bu baax parce que vraiment euh, def na jéem na def retour boog ou def na retour pour jéem a suqaliwaat làmb ji mhm. donc moom it homme de défi la comme man mhm. maa ngi koy nuyu au passage di ko ñaanal nag li mu sumb mhm. yàlla kàttanal ko mbas muy jógee fii ba mu organiser ko ak jàmm incha allah loolu rek lañ ko mën a ñaanal fi mu ne nii ba am na loolu tam bala ñu cee bala ñu koo tëb parce que dama gis dama la dama la tudd dama la tudd Balla rek sa kanam xaw a changé Balla itam bi moo ko la bi ma ko fii laaj say ma dama ko laaj rek mu xaw a changé mhm. lan la xanaa dafa am lu ngeen dencalante yéen actuellement loo xam ne da ngeen koy nëbb maanaam nit ñi te seen diggante waaw dafa xam naa ni combat bi dafa dafa am lu si ump lu ko ci ump moom Balla waaw lu mu ci xamul taba bala mu koy comprendre après combat bi parce que dégg naa seen façon de communication bu baax ñoom ñan waaw ñoom ñan ñoom seen waa kër waa kër Balla nga wax Balla waa kër waxuma la ay ñan waa kër Balla Gaye laa dégg naa seen communication moo tax ma ne dafa am lu ñu si umpale te xaar la ñuy door a comprendre la ñuy soog a comprendre mais fi nii ko ñëw comprendre. kon da nga la am da nga ko. xam nga waxoon naa ko. waaw woon ba mu jàll. bii it maa ngi ko koy waxaat. nga yaakaar léegi comprendre fi mu nekk nii. ba léegi comprendre déggoo may dégg naa seen communication may la comprendre ruñ bala ñuy comprendre mu jàll. moog ñi ko yor. waaw ñoom ñëpp. Ah, ñoom Aziz da ko yor. mais loolu xam naa ko ba may bëreeg ñoom moo ko yoroon ba may bëreeg moom ñoom ñoo ko yoroon. Aziz da ko indi woon. moo ko indi woon kay. mais loolu loolu umpewul xam nga man ay diw diwa ne ci ginnaawam diw diw bu ñëw bu xamee ki ne sa ginnaaw daf lay gën a noppal parce que ngay xam ne kii moog diwa yow loolu du la def dara tiitalu la. bi may bëreeg moom Aziz moo tëgg combat bi si boppam. moo ko tëgg ci xaalisam. moo ko tëgg si xaalisam doon promoteur bi mu doon booyam. loolu déranger wu ma. kon daal ñoom Aziz ak ñoom Balla ñu fi mu ne comprendre xam xamaguñ lu xew. en tout cas daal pour l'instant. Hmm. comprendre ñu li ma si wax na du bari xaar ba ñoom dat na ñaanal Gaston rek. mbas mi jàll fi yàlla may ko ay yu mu eggalee combat bi incha allah rabbi ñu boobaa la wax di saf. ci la wax jay neexee. Mhm. Uh-huh. léegi Gaston moomu yaa ko wax ñu ngi koy ñaanal di ñaan promoteur yëpp ndax promoteur yi lu la waaye waxati waxati moom xam ne ay jàmbaar lañ ndax jël nañ seen ay xaalis jox ko ay mbër toog di xaar te mhm. loolu jàmbaar dëgg moo koy def Gaston Mbengue nee na la 4 avril dina ci tëgg Lac de Guerre 2 ak ki nga xam ne moom mooy Eumeu seen mhm. ci fekkente ne état bi joxe na ndigalal ñu tëgg ko mhm. maanaam ñu ubbi làmb ji làmb ji ba tey mu ngi tëw ubbeeku yéen a ngi wax ngeen conférence de presse ngeen daje ngeen ba tey situation bi réglé wul léegi te saison baa ngi dem loo gis waaw moom boo bëggee dëgg-dëgg hmm. li mu bloqué làmb ci gën a ndaw moo booy seet hmm. dafa bloqué sax économie mondial bi yëpp parce que tey euh, booy seet entreprise yu bari bari bari tey ñu ngi daanoo ñu bëri ñu ngi ñàkk seen liggéey mbas mi moo ko waral kon tey benn combat la sénégalais wala am actuellement ou monde bi yëpp mooy tey ñu jéem naka la ñuy xeexee bay yàlla teggi fi mbas mi activités yi continuer muy promoteurs yi métti na seen côté mbër yi métti na seen côté manager yi métti na seen côté képp ku yëngatu ci làmb métti na sa côté bu ñu waxantee dëgg metti na si sénégalais yi ñëpp kon nag lii yàlla mi ko fàcce daal la ñuy ñaan yàlla teggi ko fi ba activité yëpp mën a delluwaat seen seen place. activité yi mën a dellu seen place. am na seetlu bu ñu def tamit mooy promoteur yi gis nañ fan yi ñu ngi aw côté Gambie ay mbapat ay face ay nangam sangam mu mel ni ñu ngi daw jëm beneen côté bi loolu tamit est-ce que bu yàggee du am lu mu yàq fii lamb Sénégal. waaw eh, mbas mi rek moo ko waral parce que tey bu doon mbas mi amu fi tey événement yi yëpp jàll nañ man gis naa. vraiment Gambie ñi def seen i ñi def seen i programme ñoom. ñu ay soirée ñu ngi def ay lamb ñu def lépp. ah bu nii moom xam naa ni promoteur yi bari dinañ jéem a daw dem Gambie. Mhm. man nag dama xamul ndax li am Sénégal daa amul Gambie wala lan la. waaw loolu de mooy coow li. mu jaaxal na jàmm ñi de. ah waaw gaa yaa ngi Sénégal ak Gambie benn la. waaw waaw ndax li amul li am li li li nekk Sénégal dafa nekkul Gambie wala li li li li am Gambie amul senegal loolu moom euh, question bu ñu war a bu ñu war a laajte la yow mi ku la yóbbu Gambie ak Balla Gaye nga bëri ji. ah oui mais signé contrat nii boo xamul kañ nga jëm dafa metti kon te yow pare nga pour wax Gaston mu yóbbu leen Gambie bu fekkee situation bi dañu. waaye Gaston bu ko neexoon na ko yóbbu sax Mauritanie bu fekkee Mauritanie mën nañ man aw ma aw ma man damaa damaa xoolal man damaa tàmm fekki waate man benn mbërëm ma sa fekki Mbour Mbaye Samb la. ca la gëjee. ñi des ñi maa ngi di fekk seen i feef. ok kon kay buñ ma yóbboo Gambie. seddoo la maay gën a jege sax. <laughs> buñ leen waaw. waaw ndax ñoom buñ jógee Dakar fii la ñuy waaw mais te tamit am na lu ma jaaxal de man day di xëy na di nga ne euh, combat bi yegg seegul sax mais man Bombardier da nga danga da gaa ñemee yi de ni ngay waxee nii. mais man lan laa war a ragal si nit lan lan laa war a ragal si mbër mbër maanaam mbëru Sénégal wala si doomu adama dama xam ne sa adversaire gënuñu ma gënuñu maa dëkk si dëkk bi fii laa juddoo yaroo fi gën ëpp ñu may mbokk. kenn gënu ma see ñime lu metti kon lan laa leen di ragale lan man lan moo tax ma la ragal ragal bokkul samay kii. bokkul ci non bokkul non bokkul samay vocabulaire vraiment moom yàlla bind ko defu ko. non sa adversaire c'est dafa am Sénégal yoo xam boo leen waxee dañ naan Balla moo dàq bëre Balla dafa am fit am ñoo xam ne dañ naan Bombardier moo ëpp doole Bombardier dafa am fit ñaari wax yooyu noo koy analyser. man daal dama jàpp ni mbër dàquma bëri si làmb ji ndax. fa ko teg mooy. ñi ñu wax ni ñoo dàq bëri si làmb yëpp ku si nekk si bëri laa la daan. muy kan ak kan. limal ñu fi dàq bëri. man kay xaw ma yow mi bëri ñoom kay. waaw ñi ñu wax ni ñoo fi dàq bëri. waaw comme Balla Gaye da am na wax ne daa mën a bëri. Tafa Gueye ay Zallo. jeex na yaa ko lim te dóoruma si kenn mu daanu. ku si nekk bi ma lay daan dama la jàpp daan la c'est que mbër mbër yi dañoo bëri ku nekk sa façon bëre gis nga boo amee doole pour sa bëre feeñ dafay jafe. parce que loo def rek dañ naan doole la mais clé yu si biir duñ ko seetlu parce que doole ji rek la ñuy gis hmm. waaw. mais ku mën a bëri daan na la muy Eumeu Sène. si làmb mënoo daan ñëpp yàgg naa ko wax. bi ma koy wax Eumeu Sène daanu dama ni làmb ku daan ñëpp amul Sénégal da ngay daan ñii ñi daan la wala nga daan kii kii daan la mais kenn ku daan ñëpp ci Sénégal amul. déedéet mënul nekk yàlla séddalewul noonu hmm. déedéet. macha allah am na solo kenn mënta daan ñëpp loolu moom c'est impossible mais tey bu ñu euh, bu ñu continuer hmm? ma waxtaan tamit ak yow ci euh, loo xam ne nii defe naa ne mu ngi concerné tey Sénégal parce que homme politique nga nitu média nga ñëpp lay seetaan. Hmm? muy mbirum politique bi. Hmm? tamit ay sénégalais ngeen te dangeen di jëflanteeg politiciens yi. gis nañ fan yii coow li ne ci dëkk bi coowal Ousmane Sonko. état du Sénégal tojante fii taali hmm. oto jàppal bàyyi yow en tant que porteur de voix loolu ban gis-gis nga ci am Bombardier waaw en tant que porteur de voix ak message bu ma leen di wax rek mooy que man ay toj toj toj ay oto ay taal si mbedd ak yooyu yëpp sunu alal la ñuy taal rek loolu conseil moo ko benn xale ensuite mooy tey xale bu ci génn si mbedd mi di taal di yàq bañ jàpp la it politiciens yi ngay wax muy ténor yi ngay gis nii hmm. suba ginnaaw suba ñoom ngay gis ñu daje si ay restaurant di reerandoo di añandoo seetlu rek boo seetoo depuis 1960 ba léegi ñoom indépendance politiciens yi lan la ñu waxante seen biir ba nga nit ñi c'est fini dootuñu ànd ci addina ngay gis tey kii nekk doo pouvoir jël na jël na jël jël na jël na adversaire am indi na ko si wetam ah. ah xuloo nañ mere nañ kii tëj nañ ko génne nañ ko indi nañ ko si wetam loolu nga fi dégg kon tey man d'accord ma si jël ay pono di taal jël ay yàq ay otoog parce que tey euh, politiciens yi ngay gis nii. seeni doom est ce que dañuy si si tata yeeg si bis yi bu ñuy jàngi oto yi oto yi oto yi mool moo di yóbbu kon ne yooyu ngeen di taal noonu <laughs> après si seen xaalis lay demaat yéen seen yéen si alal ngeen di yàq man daal li ma leen di mooy nañ nekk citoyen normal mooy am nga loolu naqari si politicien élection ngay xaar mu ñëw nga jël sa carte votel ki nga bëgg votel nga dem ñibbi mhm. waaw. mais jiñante bi jàppal bàyyi def na kii diw def na lii kii def na ni affaire massage loolu yëpp loolu yëpp si politique la ne. sa adversaire politique loo ko mën a déstabiliser danga koy def waaw loo ko loo si man si déstabiliser ko koy def euh, affaire sonk nag comme dafa nekk si yoon kenn mënul jiitu tey di wax si yoon parce que tey képp koo dégg mu ci wax nii si média bi rek mooy ay dégg naa eh, kii wax na lii kii wax na lee mais carrément la ci biir yoon rek moom moo mën a xam lan la mhm. mais ba léegi nii ay wax dégg naa rek nga ciy wax kon kenn mën a gu ci ma man de amaguma si loo xam ne lu ma wóor la lu ma mën a jugé kenn ne nii la demee wala nee la demee mhm. dégg laa ci am comme ñëpp mhm. mais comme nee nañ mu ngi si loxo yoon dañu xaar yoon tracé ba xam mhm. ba tey duma sori foofu parce que politique bi showbiz bi benn la showbiz bi tamit bari na coow yaa jàppal bàyyil di dégg fii coowal waykat yi fii Youssou Ndour Sidi Diop Sidi <laughs> Diop Wally Seck xam nga coow yooyu yëpp tam yaa ngi dégg ah, ay Pape Diouf affaire yu dégg yooyu yëpp yow tamit ah soo bis bi moom. nit ñi ñoo desee comprendre. mais man je suis parfaitement d' accord cent pour cent. Hmm. il faut moom ay rivalité. ok pour seen marché man a dox. ok tey su gisee ñu ne Wally Seck di Diop ñoom ñaar xuloo nañu wala nga ni Ngaaka Blindé ne Dip. Dip Doundou Guiss waaw. waaw fan su Dip yëpp dañuy jóg. Hmm. ne lu lépp lu Dip génne dañ koy jënd. waaw fépp fu fépp fu di def di defee interview dañuy dañuy dem vi ko waaw fu ñu ne tey kan moo war a ay commentaire uh-huh. dañuy dem di commentaire mais loolu c'est c'est logique te lu normal la uh-huh. tey soo bis bi di nga gis sax ñaari ñaar ñoo xamante ni duñ sax doon ay ennemi dëgg uh-huh. mais mën na jouer le jeu maanaam tey fexe ba nekk adversaire mais may naa la deux ans trois ans ou du fa egg sax un jour ngay gis tey ñu ne Wally tëgg na concert invité na Sidi Diop ñu ne voilà Sénégal rafet na ñu lii lañ xam teraanga mhm. voilà lii rafet na ñaar doomu ndey ñu fàttaloo dem ci leneen ngaaka bi leen de man na tëgg tey concert fii ak un an mhm. woo dib mu ñëw mhm. ñu yëg si kaw seen bi mais Youssou Ndour ak kii amoon nañ fi coow lu pay 40 ans. Uh. ànd ñu dem Bercy. waaw moog John Seck moog John Seck <laughs> mais noonu la soo bisi moom man uh, ànd naa ci. rivalité la nañu am rivalité bu mag a mag a mag daal seen i kase a jar seeni i conseil di fait parce que tey bu ñu nee uh, Wally Seck man. Sidi Diop a man soirée Wally fees na soirée Sidi feesul ku si tëgg rek dañuy bëgg sa soirée fees ah tey bu Wally tëggee ay fansam dañ naan na fees parce que bu feesul fan Sidi Diop dañ ñu ñaawal mm. tey kuy fan su Sidi Diop da nga naan buñ tëggee na fees parce que fan su Wally bu feesul dañ ñu ñaawal baax na si ñoom loolu man ànd naa ci. Ah. mooy rivalité bi amoon sa diggante ak Tyson yéen ñaar ay rival ak surtout ak Yékini. ñun senegal benn problème lañ la ñu am. <laughs> benn mooy tey euh, comme tey nga ni Chris ne Ronaldo ne ne ne ne Messi tey nga bokka nga bokk ak Chris ne man Chris laa bokkal si deret mais man Messi mooy sama zone boo ko defoon Sénégal dañ lay dañ lay critiquer mais tey man nga gis tey koo xam ne kër waay la dëkk ne man Sidi Diop mooy sama woykat ok au ñu jàppee ko nii euh, ku nekk li ngay yëg li ngay yëg ngay wax rek waaw nit kenn du ko tànnal xarit mhm. nit kenn du ko forcer si lu mu bëgg lu mu war a bëgg mm. xool dafa sori si li muy bëgg moom moo koy tànn ba mu bëgg ko. àndandoo ak xaritoo kenn du ko forcer nit. day ñëw naturellement. Mhm. mais tey nga ni waali waali laa dëkkal mais siidi laa faral. Mhm. su boobaa dañ lay ŋaññi. ok waaw. maanaam daal ñu ñoo desee comprendre daal euh, jotaay maanaam ànd yooyu daal. si am na solo. léegi fi may jeexale ak yow defe naa ne le 27 ak le 28 ab date la ci làmb Sénégal ca Gambie fas Ndiaga Coy Fallou Ndiaye moo fa teg million 250 mille. Mhm. war fa tëgg làmbu simple. war fa sargal ki nga xam ne nii moom moo di euh, rëg-rëg. Mhm. sa rak comme ni nga ko waxee léegi. Mhm. ak mooget mooget xam nga ko. waaw damaa ngi koy dégg waaw. Mhm. ñoom la war a sargal le 27 ak le 28. li maa ngi koy maa ngi koy dégg à travers euh, internet bi. waaw moom it coow li bëri trop. Ah. mais wax dëgg yàlla man aussi du ma seede si nit loo xam ni wala may jugé si nit loo xam ne xaw ma ko. wax dëgg yàlla donc mais bu ko sargalee en tant que sénégalais. c'est à saluer. rëg-rëg aussi tey bu demee def combat def ndam. ñu war ko sargal aussi dañ ko siy félicité bu baax mhm. waaw. loolu daal mooy mooy mooy sa kàddu ci mbir moom. waaw Equivox noo leen gisee tamit Equivox su média bi Equivox eh, ak Vox Arena mi ñëw di tëgg làmb ji yooyu tamit noo leen gisee parce que tamit yaakaar naa ne ñooñu moom faaw mënuñoo bañ a nekk say partenaires yaakaar naa ne nag. waaw moom samay samay gaañ lañ parce que boo seetloo bi ma jógee Angleterre. waaw bi ma indee ceinture bi. defe naa ñoom ñoo ko njëkk a jël ñoo ko bien waaw. Euh, kër kër Cheikh Omar kër kër kër Malick Gakou. waaw loolu voilà tey biñ si ñëwaatee yéen laa njëkk a wax. ñoo njëkk a euh, man daal li ma bëgg. mooy ngeen gunge ma ba Pologne. non dañuy dem bu soobee incha allah incha allah rabi. yow kay dañ lay jox passeport yi lépp lu fa xew rek. waaw ngeen jox ko Sénégalais yi. amul benn muskil la hélas hélas la nekk nii xam nga moom film rek lay def. Mhm. moo gomis ñoom laa àndaloon tey mais fii nga ñu dalal itam nangu da nga koo kode daal waaye xam naa ne kër gu bees la man na ko gars yi jàpp fii daal noppalukaay bu bees la bu bees 52 fii mooy la bees 52 bits bu la neexee ah. <laughs> waaw noo ko noo ko tuddee baax <laughs> eh, maa ngi nuyu sama ñi ma nekkal nii tey muy sama entraîneur Mbaye Boy. Mbaye Boy waaw. waaw waaw kii tamit dama mm. la dégg ba ngay nekk ci carrière. waaw kii ba tey mbay Boy mbay booy kii moom laa njëkk àndal si làmb. waaw tuddee na ma doom tuddee naa ko doom ñoom ñëpp ay grand lañ léegi. kon sama diggante ak moom. romb na làmb nekkatul làmb te tey damay bàyyi bëri ñu kon ni di ànd ah, tey sunu sunu famille ñoo jaxasoo mhm. tey bu doon làmb rek moo ñu boole mhm. bu ma arrêté bëri rek jeex na mais bu ngeen demee ba tuddante doom mhm. ba seen doom yi doon mag yi jëmm di seetante kon xam nga ni loolu boo lamb booleetu leen kii sol lu tiset bu bi sama rakk la sama goro la waaw maa ko yar may ko sama rakk ma bokkal ndey ak baay moom it tudde na ma doom waaw kon <laughs> kon xam nga ni c'est la famille <laughs> kii di abo waaw moom it sama fils la waaw moom lépp lu ma nekk mu nga sax bañ na ko sax boo bëggee lu ko naqari rek nee ko Bombardier xamul dara wala nga ne ko Bombardier du dara <laughs> léegi muy histoire ak yow uh-huh. waaw soo bëggee jàmm rek nee ko Bombardier mooy nickel ah, voilà donc abo maa ngi lay nuyu bu baax uh-huh. di nuyu Sénégal gépp di nuyu sama famille uh-huh. di nuyu soxna yi euh, madame Dia moo jaar fii madame Dia un wala deux. deux. ah deux waaw moo def lii. Ah. def ko si cadeau Saint-Valentin bi. Saint-Valentin ah, waaw comme waaw comme nekku fi. waaw moom la moom moom la yónni mu ngi mu ngi Paris. mu ngi Paris waaw. ok donc maa koy nuyu di nuyu madame Dia un aussi. waaw fii ci moom mooy yaay xale yi. waaw di di ziar sama sama njaboot di ziar sama famille. <laughs> waaw di la wax de si si dalal léegi. daa mel neex na de. non loo gis nag. loo gis si àdduna. <laughs> waaw un deux ci gën. déedéet waay ah, tamit. moo ci gën kon de <laughs> mais te sa sa añ bi tamit macha allah añ bi tey de. <laughs> waaw mais yéen ko moom ay lot affaire yooyu. yéen a ko moom ñun si teraanga rek la ñuy dox. macha allah et puis nit bu déplacé woo ñëw tamit da ko war a teral. Mhm. non loolu añ la rek mais des na des na des na deuxième partie bi. beneen partie amaat gisoo ko. waaw waaw gis naa gisoo ñu ngay yëngal de waaw ah. waajaa ngay upp rek moom waaw ah, xar def léeg léeg lot la woon lii xar la ah konte dana doy waar dana ala daw <laughs> mais mbir kontaan nañ ci jotaay mais man aussi kontaan naa trop ah. lépp luñ fi wax loo xamante nii lu dëng la ku si gis sa bopp ñu ngi koy jégalu xaj ni ñun defar moo ñu tax a jóg waaw lépp lu ci jub yàlla la neex suñu borom mhm. waaw kon ñu wax rek à bientôt di leen wax ni daal euh, bëgg nañ daal lépp luy communication luy image mhm. waaw bëgg naa ñu jokkoo si mhm. comme ni ma ko waxee rek Equivox defe naa dañ ma jig ma jig leen waaw kon maa ngi leen di tàllal loxo mhm. di leen wax ni bëgg naa daal ànd ak yéen ba Pologne incha allah. du soobee suñu borom noonu lay demee partenariat lay doon parce que du mën a ñàkk parce que nag Equivox dafay nekk pour tout le monde te buñ gisee produit sénégalais bu mel ni yow di jongante di à l'étranger defe naa ne ànd ak moom defe naa ne du yàq dara te yaakaar naa itam lu am am solo lay doon rek nooy ñaanal yàlla daal sa combat boobu. Mhm. ndam la nga amoon fële ca Angleterre yàlla na nga am ndam lu ko gën gaaw fii ci Pologne gën ko sedd lool. barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di nuyu entourage bi yëpp. di nuyu ñoom mbay booy ak sa gorobale ah ak sa ginnaaw tool bi sama turandoo soxna <laughs> nuyu moom tamit du nuyu képp ku dëkk ci potit Côte bi rek di leen ñaanal jàmm hélas di la remercier moo newoon si caméra bi ak ki nga xam ne nii moom mooy Gomis borom Medina Gueule Tapée